Excellence euh, monsieur le président de la République nous l'aimons. Nous nuyu. visite d'état ba nga République populaire de Chine avez doon def bilan lan nga ci de euh, Vous bilan De que euh, tukki la tukki de Chine ci lu kawé suñu njort ndax gannaaw biñu ak euh, autorités chinoises yi notamment président Xi Jinping ak yeneen kilifa yi dëkk yi nekk président assemblée populaire nationale bu Chine ay chef d'entreprise gis nañu ne que li ci mën a génne mooy luy gën a ñongal suñu diggante Chine te am nañ ay accords yu bëri yoo xamante ne signé nañu ko yu laale ci wàllu mbay mi ci wàllu industrie ci wàllu numérique ci wàllu ndox ci wàllu énergie ak lépp lu laale ci euh, koom-koom gu laal ci géej gi accord yooyu nag euh, ku ne xam na ni njëriñ rek la mën a jural ay dëkk yu mel ni suñu suñu dëkk euh, jëlee nañ fi tamit xéewal goo xam ne président Xi Jinping moo ñu ko xéewale ndax jox na Sénégal lu mat benn sept milliards yoo xam ne amul lenn loo xamante ne dañ ko ciy fay te loolu day wane ne rek ne suñu digënté ak Chine gën tax euh li ci téggu tamit moy biñu ñëwé ba def yenn visite yi dem seeti king daw nga xamante ne daanaka lépp dañ ko automatiser ba pare di ci produire courant ci anam fay euh euh da fay dañ koy rafetlu ci walu climat dem séta yenen entreprise gis nañu ne que Chine def na avancer yu am solo yo xamante Sénégal mën na ci jëlee lu bëri bëri tamit euh, doxale noonu ndax lu andi koom-koom gu bëri la ci biir Chine. FOCAC di forum bi jëmmal jëflante diggante Afrique ak Chine suñu réew Sénégal ak Afrique mën ci am itam ay opportunité yu bëri ci wàllu perspective di ëllëgu coopération bi yan jéego nga ci xaarandi. Euh, FOCAC nag lu weesu Sénégal sax Afrique ci boppam euh, la amal njëriñ lu bëri ci. likoy soxal euh fu mu toll nii président Xi Jinping annoncé na ne am na milliards yo xamanteni ne na ko l'Afrique pour lépp lo xamanteni dafa laal ay projet de développement kon ni may gisee FOCAC ci Sénégal ak Afrique ak Chine euh ay njëriñ yu bari la ci walu mbéy mi ñu ngi ko ne euh, lépp lo xamanteni da fay euh, suuxat mbéy mi di ko gën a moderniser euh, Chine lancé na ci benn initiative muy opportunité yu bëri yoo xamante ne nag économie yu mel ni suñu bos nga xamante ne objectif souveraineté alimentaire ak sécurité alimentaire lu ñu amee la mën nañ ko ci jëlee ci jëflanteeg Chine ci jéego yu mu jot def ci mbéy yeneen initiative tamit am na ndax initiative bi nga xamante ne président Xi Jinping lancé woon na ko te mu tudd la ceinture et la route am na lu bari loo xamante ne jural na ko dëkku Afrique yi ak dëkku ak Sénégal muy ay projet wu tali ak ay autoroute ak ay port yoo xamante ne ci biir Afrique ak Sénégal euh, Chine jot na ko fi def euh, ba laale na tamit ci wàllu industrie yoo xamante ne comme lu nekk industrie manufacturière wala ci wàllu wér-gu-yaram wala ci wàllu énergie renouvelable ay projet yu baree bari bari yoo xamante ne Euh, dëkku Afrique yu mel ni Sénégal euh, soppe na seen xar kanam Chine def na ko fi kon forum bi ci jamono joo xamante ne Afrique ngir lancé euh, zone de libre échange continental maanaam lépp luy suuxat koom-koom ak jëflante ci diggante réew Afrique yi fokk ak opportunité bu mag la mën a doon ci luy tax Zelekaf gaaw a am essor buñ ci yaakaar excellence ci lii nga xam ni mooy multilatéralisme Chine da cee am euh, approche boppam loolu tey ban gis-gis nga ci mën a am. Chine nag euh, dafa am euh, loo xamante ne daf koy doxale te mu nekk loo xamante ne réew Afrique yi ci loolu la ñuy loolu la ñuy xaar ñu ne ñëpp ñëpp ñu ñuy jëflante ci bitim réew mooy li ñuy woowee multilatéralisme bañ a bodd kenn dem ci jëflante joo xamante tamit dañuy respecté wante nawala wante Euh, ba pare ku ci ne gis boppam ci jëflante jooju que mu nekk Chine wala mu nekk yenn dëkk yi nga xamante ne Chine ngi jëflante ak ñoom ci Afrique euh, gis nañu ne tamit ànd nañ ci yéwén ndax initiative yi nga xamante ne président si annoncé na ko muy initiative pour le développement mondial di initiative pour sécurité mondiale ak initiative pour civilisation mondiale yooyu yëpp dafa dox euh, méngoog li nga xamante ne partenariat boobu la Euh, euh, Afrique nekk di di wër tey li ma li ma gis nag mu gën maa neex ci initiative yooyu yëpp mooy développement bi nga xamante ne dañ ko nettali ci kanam ak sécurité ak fexe ba àdduna nu muy doxee ñu bañ bàyyi kenn ci gannaaw euh, sóoraale xalaatu ku ne bañ a xool ñi ndóol ak ñi am te loolu mooy li nga xamante ne ñun ñoo ko bokk war ko waxtaane te Afrique war ci am baatam ndax ñun fu mu toll nii ci Afrique lu ñuy gën di euh, laaj ci scène internationale bi mooy li ñu doon doxale ñu soppi ko te gën ñu mayante cër tamit respecte li nga xamante ne mooy suñuy culture ak suñu autonomie ak suñu spécificité Chine nag wone na ne que gouvernance mondiale nu mu doon doxe mënatul doxe noonu te nekk na koo xamante ne bokk na ci ñi am baat ci conseil de sécurité ONU par exemple mais mu ngi ne ñu mel ne Afrique ci lu ñu yor ci population mondiale dañu leen war a bàyyi xel ba pare déglu leen ñu am ay siège ci institution interne instance internationale yoo xam ne dañ ci dañ ci dañ dañuy waxtaane lépp luy doxal àdduna donc euh, côté boobu euh, def nañ ci ay jéego yu bëri te Chine tamit am na ci taxawaay goo xamante ne taxaway guñu rafetlu la ñun réew Afrique yi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur le président. maa ngi leen di jaajëfal bu baax yéen tamit.